yéen a ngi teewlu info 221 maa ngi leen di nuyu di leen jaajafal mbokk yi ci ànd beeg déglu bi ay kàddu lu jubee ci Ousmane Sonko bataaxal bi moom moo ko daal di fësal niki tey jii moom nag mi ngi xamle mes chers compatriotes képp koo xamante ne ab patriote lu jëm ci bureau politique national bu ëmb kuréelu Pastef nee na nag mu ngi leen di fas ni jox ab rendez boo xamante ni jàpp nañ ko bu juróomi waxtu jotee ba toftal fanweeri simili ngir rek ñu amal ab présentation lu jëm ci mémorandum milé jëm ci violence yi nga xamante ne rek jamono ji am na fii ci Sénégal Sénégal te du kenn nag du nguurum Sénégal jëmale ko ci askanu Sénégal mémorandum boobee nag dañ ci fas yéene dellu si waat rek ci événement yi nga xamante ne jotoon na fi am ba ay bakkan daal ci juróot waaye itam yàqu-yàqu daal di ci bari jamono joojee nag bile décision euh, jëm ci wàllum décision judiciaire unique bi nga xamante ni nguur gi jël na ko wala sax yoon jël na ko daan Ousmane Sonko ñaari atu kaso mu doonoon nag benn fan ci weeru juin atum 2023 bi ñu weesu ci ëllëg sa nag ay fitna tàmbalee fii ci Sénégal ay itam yàqu-yàqu bari lool dugal ci Sénégal ab guuta goo xamante ni àdduna wërngal këpp di nañ ci gis seen bëpp jamono ji Ousmane Sonko ba boobee nag jot na génn këram dañ ko daal di placé sous euh, résidence surveillée munul génn munul dikk munul ñëw waaye itam nag ay njabootam rawatina ay jigéen ñaalam tamit kenn nangu fu woon nag bàyyiwuñu woon kenn rek mu daal di ko seeti rawatina ay avocat am bi nag jamono ji Ousmane Sonko mi li nga xamante ni moom moom ndey mbili bi moo fas yéene nag daal di génne ab mémorandum bi moom Ousmane Sonko ni ko tey naka bu juróomi waxtu jotee ba toftal sa fanweeri simili fas yéene nañu naka daal di delloo njukkal naka sëgg waaye tamit ñaanal ñi nga xam ne rek jot nañu loru ci fitna yi amoon waaye tamit jaajëfal ak masawu askan yi nga xamante ni seeni alal daal dina si jot Ousmane Sonko nag moo bind bile bataaxal nag mbokk yi fas yéene nag ñu déglu ko nag bu juróomi waxtu jotee ak lépp loo xamante ni dinañ ci duppee ci seen euh, mémorandum bi nga xamante ni jagleel nañ ko ñiy ñàkk seeni bakkan waaye itam ñi ci yàqule ci xew-xew yi am benn fan ñaari fan ba ñetti fan ci weeru juin bi nga xamante ni moom la ñu génn yaa jëf mbokk ci ànd beeg déglu bi di leen wax nag ngeen wéy di abonné ci info 221 ngir daal di jot lépp lu jëm ci xibaar fii ci Sénégal